xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen déwénati di leen baalu àq di leen baal àq di sàqu ci yéen saa su ne ngeen di ñu baal ndax nag wax dëgg yàlla waxtaan neexul léeg nga wax wax loo xamante ni neexul nit ki wala nga def loo xamante ni du neex nit ki waaye nag doomu aadama moo ni toll saa su ne ngeen di ñu comprendre noonu ba tax na ñu ngi leen di baalu àq bu baax a baax a baax di wax ne yéen itam ca fa ngeen toog ak lu ngeen mën a wax ak lu ngeen mën a sedde ci ñun baal nañ leen àq ndax période boobu la ñu toll di sàkku suñu borom itam yàlla ñu suñu borom boole jéggal ñu teewee ko at yu baree baree baree bari te rafetu fekkin muy weer wi nga xamante ni moom la ñu dëgmal muy sahru ramadan euh, ñu dellu siwaat nag niñ koy defee saa su ne rek ànd ak suñu gan gan goo xamante ni tabaarakalla macha allah Serigne Bassirou Touré tey mooy ñaareelu yoon mu jaar fii ci biir euh, kër gi ñu fas yéene seq waxtaan mu jóge ba Kër masaar nag macha allah li ñuy def rek mooy dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyook mbokki et internet yi ñuy seetaan sëñ bas ñu ngi lay nuyu di la ziar. salaamaaleykum wa rahmatullah soxna Mbaye maa ngi lay fay di la ziar di la joxaat sa wàccuwaay di nuyu ñëpp rek di leen ziar baal xaq di leen baal xaq. mbooleem réew yëpp ci leen di nuyu di leen siyaar di nuyu waat suñuy technicien bi di ko siyaarwaat baax a baax di ko waat baal waat xaq bu baax a baax baax baax soxna Mbaye ñu ngi lay fay nuyoo jërëjëf jërëjëf yow tamit ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Kër Massar defe naa ne bi nga fi jaaree léegi mi ngi xaw a euh, bëgg yàgg tuuti euh, ma bëggoon la laaj rek kii diggante bi kii di sëñ Basirou Touré euh, ci lan la nekkoon. soxna Mbaye <laughs> laaj nga laaj boo xam ne wax dëgg yàlla am na solo lool. Mm-hmm. yàlla dogal na ne kër gi du ñu fi gan daal. Mhm. ndax jàpp nañ ne bii mooy ñetteel bi yoon. ñu fi jaar. ñetteel ndax diiru li nga xamante ne. Mhm. toogoon nañ lu tolook ay weer yoo xam toogoon nañ ñëwuñu fi. Mhm. booba ñu nga woon ci ay gëstu. ak liggéey yoo xam ne ay doomu aadama yoo xam dañoo seqoon ay mbir. te ñoom seeni mbiir moomeewul ak am jot ba ëpp. faaw la ngay mën a def. di tëjoog ñoom lu bëree bëri mhm. ak voyage yoo xam ne ñu ko doon def mhm. fu ne dem nañ ko fa nag si euh, réew Sénégal gi fu ne dem nañ fa mhm. di voyage lépp nag di gëstuwaat baax a baax a baax gën a xamaat xam-xam bi ñu yore gën koo waggaraat gën koo téewaat baax a baax looloo taxoon ñu xawoon fee gëcc dëgg la waaye du dara nag am na solo am na solo bu baax a baax euh, yaa ngi liggéey dina ma euh, jaaxal liggéeyoo dina ma jaaxal Euh, wala ndax liggéey bi da nga koo teg ci yoon moo tax boobaak léegi nga xamante ni jaar nga fi euh, benn eko awma ko ci euh, ki nga xamante ni moom mooy Serigne Bassirou Touré maanaam kalaame wala mënuma ko jot wala jël na sama alal wala dara lan moo tax loolu déggaguma ko da nga koo jaarale ci yoon wala. ngam nga soxna Mbaye mm. yàlla dafa dogal ñun. Mm. ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci lii ñu liggéey. Mm. daa loo xam ne dafa juddoo ci ñun. nekk suñu deret ñu wëlbatikuwaat di ko jàng jàngin ko jàngin woo xam ne te duñ jug mukk di ko jàng wëlbatikuwaat di ko gëstuwaat te duñ jug mukk di gëstuwaat mbooleem ñi nga xamante ne jëflante nañu ak moom ñoom ñoo la ñi nga xam jëflante nañu ba tey jii nii ñii déggante ñoom mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ dëkkal Kër Massar saa su ne bu ñu génnoon sax génn bu yàgg ña ngi ñuy soññuwaat pour bëgg ñoo gisaat mhm. loolu lépp nag doxeen wa ñuy doxee la mhm. doxeen woo xam ne doxeenu dëgg la mhm. ndax ñun lépp si jub lañ koy def laaray ba fii xuddan lépp si jub lañ koy def ndax tamit li may wax yàgg wax lépp si alxuraan lañ koy teg ñun ku ñuy liggéeyal soxna Mbayang bu ñu leeree ne mënuñoo faj sa aajo dañ naa la demal xooli keneen waaye duñu lekk sa xaalis ndax damay wax ne liggéey bii ñuy liggéey dafa nekk liggéey boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ngay jëflante doomu aadama mu jox la alalam nga téye ko denc ko lam lay sàkku liggéeyoo si defoo si dara defoo si dara xalaa kulli alit la muy mujjee si yow mooy da ngay koy mujj dégg di gàcc wala ngay mujj tajawaate yow bii di am gàcc ñun nag loolu moo ñu si fekkut diggante bii ñu toog yëpp ñu ngi woon si ay liggéey ay naxtu moo tax képp koo xam gën ñu gisante yow sax mm-hmm. da ngay fexe pour bëgg am na solo loolu loolu képp loolu. am na solo Serigne Bassirou Touré Kër Massar la jógee 77 781 79 00 wala nga wax 76 480 26 94 su ko defee rek nga jokkoo ak moom euh, ca foofee ci Kër masaar macha allah Daara jàng fa ba léegi wala. waaw Daara jàng fa tey de. sëñ Bassirou moom ndongo Daara rek la bëgg a doon. <laughs> képp nag waaye comme li ma la waxoon rek. Mm. moom alxuraan ji ni si nàmpatalee. Mm-hmm. saa suñ xëyee day gën di yokk mhm. doomu daara ji moom boo ñëwee suñ kër sama kër boo fa ñëwee nii mhm. moom doo nga yaa ngi fees ba deel ba nii ñi ñu ngi may xaar ñu ngi ma fay xaar sax ndeysaan saa suñ xëy day gën di yokk moom <laughs> macha allah ba tey ci wàllu woo nga niñ leen nàmpatalee ci alxuraan noonu lañ leen nàmpatalee itam ci lii di faj rab mu doon seen foor maanaam gàllankoor yi nga xamante ne rab daf koy def nit yëpp ngeen di ko dindi waaye ki nga xamante ne rab dugg na ko ba mu taxali ko xeram da ngeen koy dindi bokkewu leen nag ñu yor micro di yuuxoo ka nodda ka defi yëf bokku leen ci façon boobu waaye daal ku rab daaneel bu duggee seen biir kër bu génnee day laajte lan moo may indi fii lan mooy secret bi. man Soxna Mbaye li ma yàgg a wax doomu aadama yi. nee mm. naa leen rab ñun ni ñu koy faje mm. nekkul loo xam ne dañuy topp su noppi di mocc di yuuxu. Mm. ku ne ñuy dégg. wala ñu def noonu loolu ñun fajewuñ noonu rab. ñun bu ñuy faj rab. bu ñu xamee ne nit raba ngi si moom wala seytaane mi ngi ci moom ak lu mën a doon du ko yàqal mm-hmm. ñun buñ koy defalee lañ koy def ba diggal ko lañ koy diggal si sarax mu def ko si nu ba dañ koy tàqaleeg moom ba mu jeex tàkk ci moom bu doodu ko gisati si mm-hmm. ay yu néew koy tàqaleeg moom doodu ko mm-hmm. ndax rab da nekk na loo xam ne du ci ñun ca sa maam yi la woon ba tey jii muy dox ba nii may jugee Kër Massar yàlla mu méttiim laay laay seere de yàlla xam na ko am na jëmu joo xam ne ba muy ñëw suñu kër de yàlla xam na ko wax mënu ko woon mm-hmm. raba ko jàppoon mm-hmm. waaye wallaahi lan si ba ñu ko am na lu ñu ko jox ba mu ko jox ba mu ko jëfandikoo sa kàttan nag borom ba la nekkoon ci moom dafa dañ mm-hmm. te ba muy génn doon dox doon dox ak sagom doxulwaale ay sagom doon dox gis naa tam ngeen di faj xale yi nga xamante ne rab daf leen di dugg ba ñu yéex a màgg wala ñu yéex a dox wala ñu yéex a wax wala dara ñoom tamit même secret bi la am na am na benn xale boo xam dafa dër dër man wax ji dafa xawoon tàq mu dër nii dër bi ma ko waajuram dikkee wax ma ko na ma sama doom bi de daawut dër waaye dafa jékki-jékki dër dër ko xaw ma lan la am na loo bi ma ko jox bi mu ko gàllaxandoo ko da ko gàllaxandikoo rek gàllaxandikoo ëllëg sa laa dajeeg waajuram di ko wax mu ne mi mu ne mi ngi wax lu leer nañ na loo du gone bu tewee màgg am na loo xam boo ko joxee suñu borom dana dogal ak màggam gaaw am na loo xam gone bu tewee ñàkk a dox yeex a dox am loo boo ko defee suñu borom dana dana ko may mu mën a dox mhm. am na loo xam bu gone tëwee mën a yeex a wax mhm. am loo boo ko defalee suñu borom dana ko may ak wax am na solo loolu dafa bokk ci seen ndono parce que nag euh, yàlla moo def loolu ca xeet wa waaye tam am na leneen loo xamante ni yaa ngi ciy liggéey tam wàllu dindi liggéey ki nga xamante ni liggéey daf ko jàpp ba léppam yàqule léppam tëju bunt bu mu fëgg mu doy waar loolu kooku lan la ñuy dindee liggéeyam alxuraan lay doon wala lan lay doon lu ma lu ma dul jug soxna Mbaye di wax muy dindi liggéey ndax doomu aadama dafa nekk loo xam ne du dara ndox doomu aadama si ban lañ ko liggéeyee te tamit doomu aadama yi surtout suñu mbokk yi nit ñuul yi kenn yéenante wut te kenn ku si nekk saa su yaa ngi dox pour gàllankoor sa morom sa morom bu amee am lu bari yaa ngi koy gàllankoor pour koo ko faagagal yàq waaye nit de bu ñëwee su ñun jaamu yàlla bu ñëwee su ñun ñu liggéey ak liggéey bu lum lum garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw bu dikkee am na loo xam ne bu ma la ko joxee nga sangoo ko billaahi wal kitaabi te lee addinaa mooy seetaan bala maa génn fan fan ko fan bala ngaa génn fan ko doon sangoo yéen da nga yëg sa yaram ni mu oyofee tooy te liggéey bi yëg sa yaram oyof am na ñu bari dañuy wax ne sama digganteeg sama doom def def la sama digganteeg sama borom kër def def la sama digganteeg ki may liggéeyal def def la yooyu yëpp ci xeetu liggéey yooyu la bokk. xeetu liggéey boo xoolee ba xam xeetu liggéey boo xoolee ba xam ne dañ am na luñ ko def. Mm-hmm. boo xoolee ba xam ne am na luñ ko def. Mm-hmm. faaw yow da nga xam ne yow liggéeyee ko jàpp wala cate ko jàpp wala roba ko jàpp. Mm-hmm. fekkee liggéey nga jàpp am na loo xam ne ay xal lañ ko boole xal. am na boo xam ne sangaay boo xam sangaay bopp neuf xal lañ koy boole ju xonk cuur. billaahi boo ko sangoo fa nga doon fa nga doon sangoo bala nga faa génn na nga di sa yaram sa ni muy oyofee. am na jëmm joo xam ne ñëw na seet suñu ñu defal ko ko mu sangu ko sa guddi la toog man na lu santir lu mën a xalaa bu ko daloon mu waan ma téléphone te jàpp naa dana ma seetaan mu waan ma téléphone na ma mbir mi ma nga songo damaa mel ne kuñ takkoon xala ma yëgaal sama yaram ab oyof ma ne ko loolu de boo ko sangoo wa mbooleem mbooleem mbooleem loo xam mi ngi ci yaram bi mhm. day dañ ba set wecc da dindi ba ba tey ci wàllu parce que nag euh, loolu nekk na lu nit ñi bëgg ubbeeku ubbi sa yaram bunt yu ubbeeku te jafe-jafe yi dafa bari ci àdduna bi loolu ñu gis ne ki nga xamante ni sëñ Bas da ciy def ay ñaan te nag oyofalal ko gaa yi lool lool gaa yi tam wax nañ ne yëf yi oyof na lool. xam nga nit. nit day tëju. nit day ummu. nit day ñàkk du am. Mm. leen loo si gis nag bu ko suñu borom dogalee si yow. Mm. waaye fenn fu ne fa muy jaaree ba dañ am na fu ko suñu borom jaarale ba mu dañ mm-hmm. nit bu tëjoo ba nga xam ne man kii xool nga ba am dafa tëju mm-hmm. am na loo xam boo ko defalee mm-hmm. balaa mat juróom-ñaari fan wala balaa mat quatorze jours ak ubbeeku gaaw dana am ci moom am na loo xam loxo yi doomu aadama du si jug na am na loo xam tamit wax a koy def si yow mooy cat am loo xam tamit rab a koy def si yow ba tëj la ba tuddoo ubbeeku waaye am na yoo xam ne quatorze jours doo ko romb te ubbeeku woo bu ñu la te xeeti sunguf yoo xam ne mun na ko sangu boo bëggee gaaw a tàkk am na mm. sungu yoom boo ko dee sangu mm. léegi te nga romb tàkk am na sarax yoo xam ne bis boo ko defee ndax damay yàgg wax ne sarax amul lu mu mënut mm-hmm. nit mën naa tëju ba tëju nga génne ko sarax benn sarax mu tijjee ko complètement mm-hmm. waaye nit mën naa tëju nga génne ko sarax sarax boobu gën koo tëj mm. sarax boobu gën koo tëj waaye ñàkk xam saraxam mm-hmm. ñàkk xam saraxam ndax nit ku si nekk am na sarax boo xam ne moom nga war a génnee moom nga war a génne si nit boo xamul sa sarax mën ngaa génne sarax boo xam ne mm. da lay tëj d'accord ñamu sukar lu si mën a ñamu sukar nga génne lu bëree bëri mm. da ubbi ci lu bëree bëri mën a ñamu sukar am na ñoo xam ne waruñoo rey xar mm. te bu ñu reyee xar deret bu ñu tuuree deret mën na leen a faagagul mën na lu bëree bëri d'accord gën a tëj d'accord lu am solo Serigne Bassirou Touré la ñu àndal tey ci émission bi ma nga dëkk fële ci Kër Massar ngeen am ko 77 781 79 00 wala 76 480 26 94 ba tey itam am na loo xamante ni macha allah waa Kër Massar nee nañu sant nañu ñi dëkkee Tëngéej am na ci benn élément sant nañu muy lu jëm ci wàllu am borom kër wala am soxna euh, euh, lan ngay jëfandikoo ba diir bu gàtt boo ko joxee nit ki euh, yàlla mën naa def mu am borom kër wala mu am soxna. nit de nit de soxna mbay bu tawee ab bu tawee ab borom kër moom ba ñu xool ko ba xam ne. fekkee raba ko jàpp. moom dañuy dañuy dindi loola dañuy tàqale koog loola ba mu dañ ci moom. Mm. defar ko loo xam day am borom kër. bu ñu xoolee ba xam ne ak taxawaay dafa am ci moom nag am na téere boo xam ne bu ñu ko bindalee balaa tilim ca moom mu am sa borom kër. mooy téere tilim mu li balaa mm-hmm. tilim ci moom. Mm-hmm. mu am borom kër. Mm-hmm. bu ñu xamee gàllankoor bi gàllankoor dañu fexe ba dindi gàllankoor ba. doo ko doo ko may borom kër loo xam ne bu ñu koy defal. si kàttu borom bi ka njëkk a wax day day day day takk. day te loolu jëflante nañu si nit ñoo xam ne Kër Masar dañu dëkk. ndax ñun Kër Masar yaakaar naa 2011 ba léegi ñu nga fa. bu ñu doon wax wax du nag suñu noonu kon jigéen ñi bu yàgg tuxu nañ dem feneen mhm. waaye la ñuy wax dafa dafa am fuñ ko teg saa su ne ci dégg bët nga xamante nga may ma a yokk dëgg la saa su ne xam xamet ga mhm. mi ngi gën a teg la dëgg goom teg suñu tànk bëri soxna yoo xam ne yàlla mërtim laa ko seeran mhm. bëri na ñoo xam ne ñàkkoon nañ am borom kër wala ñàkkoon am doom taw am doom ba njëkkee suñu loolu suñu borom jaaroo ko suñu ba loolu saafarawu waaye lépp nag fañ ko teg la gëstu gañ ko teg ak dimbali gi yi te loolu moo ñu gën a ñor ñun. dimbali doomu aadama yi. loo tuddee dimbali doomu aadama yi. dañ si wàkkeelu suñu borom. Mm-hmm. waaw di doomu aadama yi ñu dimbal. Mm-hmm. fay borom. Mm-hmm. moom lañ si séentu moo tax ñu dimbali. bari na ñoo xam ne lañ ñu war a jox si weexal sax daanaka lu si ba xaajaat ba duñ ci ko jox. looloo tax man leen sànq Serigne Bassirou ab dongo daara la bëgg a doon moom lay doon parce que léppam daf ko oyofal macha allah te it nag ki nga xamante ni bëgg na am borom kër wala ki bëgg am doom ki bëgg ubbeeku kuy concours examen wala dara waxul ma ba ci moom incha allahu taala yàlla man na la cee defal sutura bu yaatoo yaatu ndax xool baa laab wàllu examen yaa ngi jub si de gaa yi bic la ñuy indi wala lan la ñuy indi. am nga am na loo xam sax bëgg naa ko bëgg naa ko jàll sax. mooy examen moom daanaka. Mm. ku ko bëgg jël. Mm. am bac wala BFM. Mm. wala en transition. ak lu mu mën a doon bu si jokkoo da ko am. man damay wax ne. jàkkaarloog ñuul rek rek. yàlla xam na ko sa aajo mën na si faj jàkkaarloo gi nga jàkkaarloo ñun rek sa aajo mën na si faj am na ko ma sonn laaj jamono yi coow li amee fii nii Ousmane Sonko Adji Sarr ñooñu mm-hmm. jamono yi fi awee mm-hmm. nit dikk laaj ma na ma coow loo si xam mm-hmm. boobu coow jub amagul dafa jub dafa jub si rek ma xamal na ko na ko de coow lu mag dana fi judd coow lu mag dana fi judd ma xamal ko lool na ko coow lu mag dana fi judd te ay bakkan dana ci tuuru ma xamal ko lool ba waxta loolu lu ñu gis la. Mm-hmm. loolu lu ñu gis la. da mm-hmm. jamono yooyu bi coow li xawee kii lañ lañ lañ lañ lañ delloo woon Touba. Mm-hmm. am na ñu bëri ñoo xam ñu ngi dégganteeg ñoom ñu leen ko wax si suuf. mooy li may wax ne am na loo xam ne lu waxu bitti waxu biir la. ñooñu ñu nga doon wax ak ñoom si biir ñu siy def ay sarax. te ay ponkal la ñoo xam ne ci kaw la nekk ñu si wax ak ñoom ñu si def ay sarax. ba lépp suñu borom defaat su weesu ndoxam sedd guy. alhamdulilah dama doon wax nag examen jàkkaarloo ñuul rek. ak am amoon na ci yow biig biñ lay laaj ba nga jox ñu ko mm. biig bi ngay bindee bañ jox ko am na fu ñu koy fanaanal bu xëyee suuf boo ko bindee doo si bind loolu moom foo foo si tudd ci am moom kon euh, tof c'est parti euh, ñii concours moo xam examen la entrée en sixième ni mu ko waxee BFM bac yëpp waaye ki nga xamante ni itam formation la doon def ba mu yàgg mu war a def concours pour jàll ñoom ñëpp ci la ñu bokk ndax xëccoo ci boppam moom la ñu wax te it nag euh, macha allah yàlla am na lum ko ci may li ñuy def rek mooy dañuy jeexale suñu émission ci wàllu kattan kattan gi moom bagaas yaa ba léegi. si wax nga yàlla kattan wax dafa xaw a bëri lool jamono ji. Mm-hmm. kattan bari na lool. dafa bëri jamono ji lool sax. Mm-hmm. ko mën a faj bëriwul te yomb lool teg mm-hmm. ko mën a faj bëriwul te lool sax. dëgg la am na jëmm joo xam ne maa ngi koy nuyu. ma nga dëkkee fële fële risaatool waaw wax na ne la ko dal si kàttan mm-hmm. xeet googu rek mm-hmm. waaye fu ne dem na fa nag mm-hmm. fu ne dem na fa waaye yàlla yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk boole ñu ñu déggoo mag moom xam nga man télé laa di wax nii ñëpp di ma dégg waaye ba ñu déggal ma xamal moom fu ne dugal na fa xaalisam waaye gisut gisut résultat moo tax message bi may lancé waat suñu mbokk sëriñ si nañu fexe di doxalaat suñu diggante suñu borom si lañuy def képp koo xam ñu ngi jëflante ñoom bu ñu ko mënut nañ ko xamul ne teel na ko mënuñu ko nañ ko xamul ne ko mënuñu ko ndax xalaa ku leer dañuy faatu ñun ñëpp képp ku ñuy jëflanteel ba jël xaalisam la sëriñ Tuubaa waxoon rek bay na loqtal naqir wa loqtal fatil sàllu tàndar bu la fi nekk ko yorul ni da nga ko fay mhm. kon lépp lu ñu def na doon lu wér ñun fañ ko tënk mhm. foofu lañ ko tënk moo tax it ba ñu jëflanteeg moom maa ngi ñuy woowaat di ñuy sant mhm. te di wëlbatikuwaat di ñu booleeg ay doomu aadama. d'accord nga jaare fa tàggoo sëñ Bass. waaw kon ñi ngi nuyu ñëpp rek di leen di siyaarewaat baax ba di ñaanal mboolem xalifa sonoro yëpp. di ñaanal Serigne Mountakha saa borom yàggal fi lool. di ñaanal sëriñ Babacar si suñu borom yàggal ko fi lool di ñaanal xalifa laay suñu borom yàggal fi mm-hmm. noonu lañ ko ñaanalee borom sit bii mm-hmm. saa borom defal ko tawfeex ak wér ak kattan di ñaanal mbokki réew yëpp suñu borom defal leen i tawfeex musal leen si mbas mi bañ jëlaat seen yitte wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax Serigne Bassirou Touré jóge Kër Massar macha allah di taalibe dëgg alxuraan dëgg ñor ko yor daaram yor léppam waaye nag di yëngu ci wàllu ñaan yàlla may ko ci lu mucc ayib ñetti yoon a ngi ni ñuy ànd ci sunu émission mais nag ba léegi. déggaguñu kenn koo xamante ni am na looy dingat ci moom donc woo ko ci 77 781 79 00 wala nga woo ko ci 76 480 26 94 di koy gërëm bu baax di ko sant di sant équipe technique bi euh, bu Sunugal 24 rawatina exceptionnellement ki nga xamante ni moom mooy Dóor waar nga xam ni 3 ans na laa ko tuddee macha allah yal na ko yàlla lafal cat lafal cat mboolem képp koo xamante ni toogoon na jàkkaarloo ñun di ñu doon ci biir kër Mbayang ak beneen gan ak yeneen i feem rawatina jamonoy koor gi ñu dëgmal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fi amaanillah jahi